salaamaaleykum mbokk internautes yu wasaare TV yu Dakar Midi ak lii di Click Dakar ñoo ngi nuyu bu baax a baax comme d'habitude wax naa leen que chaque jour lañ fiy dalal ndaanaan waaye tey ndaanaan ci kaw ndaanaan lañ dalal. bu gisee maanaam nu ma dugg si sax ngeen xam ne tey dafa nar a tàng tin la boo xam ne fépp ay baax incha allahu rabbi muy sunu maman soxna Awa Fall l'intellectuelle des voyants koo xam ne bu génnee Sénégal yëpp dar seen nopp mhm. à fois bu génnee Sénégal yëpp kontaan mhm. lu mu wax ñu dur si baaraam mhm. mooy sunu yaay di leen fay di leen jox seen wàccuwaay di kontaan nag ñi nga xam ne a ñoo nekk ci hôpitaux yi na yàlla fëgg seen bopp ndax nit boo amee soo amee wér war ngaa xalaat ñi nga xam ne dañoo tawat kon nag ñu leen di ñaanal yal na yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yal na yàlla tegg leen nattu ba ci daraja Seydina Mohamed di nuyu nag àddina wër nga comme ni ma koy waxee ndax damaa bëri ay nit lool nit ñi bëgg ma lool surtout ci diaspora bi di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaw macha allah mus ngeen dégg benn voyante boo xam ne day takk ay verre. Mhm. sol ay def lu nekk gis nga mère nu mu sañsee tey <laughs> parce que da nga dafa am benn différence yow ak kii gars yi dañuy ñëw takku jaax affaire da ñàngale mais yow da ngaa def sañsee man damay simple parce que de nee naa leen eh, nit ku ne mën ngaa yëngal jamono. Mhm. te doo doo fa nekk di takk ju di xonqal di xonqal eh, ay yaram. di nappe di di tësal nit ñi. Mhm. man yënguma ci loolu. xam nga man ci lan laa yëngu. yow mi may woo. yow laa soxla nga di ma woo ma di la wax loo xam ne dooy dégg lay doon waaye soxla ma taxaw ci ci ci micro naan maa mel nii maa fëgg dënn maa mel nii maa mel naa. Mhm. man man yëngu ma ci loolu. loolu yëpp après den si ñëw. maa la man la man la. te mhm. àddina dañ naan ñu naan man la fekk na du ñoom. <laughs> Euh, waaye tey suñu maman soxna Awa Fall tey à chaque fois boo boo tuddee sa tur. Mhm. Sénégal ñëpp dal seen nopp temps yaa ngi def biiru si dëkk bi. bu baax lu waral loolu. ah <laughs> macha allah man li may def. wallaay xam li may def too ko fii kenn ni ñaan lekk lekkatu kese ndaxul béy. jamais déedéet. damaa mën li may def xam li may def yàlla may ma li ma may ma koy sant suñu borom nag. Mm-hmm. sant suñu borom bu baax a baax. Mm-hmm. macha allah. mais mm-hmm. tax may def buzz. wallaay te à chaque fois boo waxee ñu ngi tamit du si baaraam. temps yii gis nga maanaam ba dañuy ñëw dañuy commencé maanaam loo xam ne moo nekk lii di actualité. effectivement ñu commencé te ñu commencé rek tey jii si affaire de kii di avant ça sunu papa Thione. encore une fois ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla xaare ko. jërë ñaanal la macha allah ñaanal bu baax. Mm-hmm. Euh, fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge mm-hmm. yàlla na suuf oyof ci koom macha allah nitu diine la woon. Euh, ku jàppoon ñaamorom la ku bëggoon njaboot la mhm. te ku bëggoon famem la mhm. kon am nañu njott mu rafet ci moom mhm. yaa nga ko ku bëgg famille la si famem lay resté boo tuddee famem nag il faut nga tuddee si kii di Waly Balago Seck le Faramareen maa la wax ni Faramareen nga waxoon si lu doy waar maa la wax ni maa la ko wax te yaakaar naa ne dama ne woon saa ci ci site bi ma ko waxee woon. dama ne woon xotti war ma baaxul. waxal nit lu baaxul ba bugguma ko man soxna wu Fall. te newoon naa la fii ak ñetti fan bi nga déggul dara ci moom soxna Fall ma bàyyi li ma doon. yaa ko def te yàlla dimbali na ma ci. sant yàlla rek <laughs> déggoo li ma wax de. maa defam defuma daal la ma waxoon yàlla dogal na ko jeex na. mais mais mais mais lu tax ah dama ne daal maa defoon maa waxoon waxuma. la ma waxoon yàlla defal na yàlla defal na ma ko sant yàlla. mais yow lan la moo la moo tax maanaam nga génnoon wax wax wax loolu. parce que damaa gis mu xotti war ma doomi jàmbur muy xale bu baax muy Wally Seck di def lu baax di xale boo xam ne xale bu am social am def social ci dëkk bi bëgg mag ñi respecté mag ñi bëgg xale yi respecté xale yi. mu a ñëw xotti ma man soxna Awa Fall bëgg ma ko xotti war ma doomi aadama. Mhm. waaw kay ñu xotti doomi waru doomi aadama di ko waxal naka solo accusation diffamation la def. wallaay diffamation la loolu. parce que nit ak loo ko mën a xamal sa ci lu ñaaw ba donte xamal moo xam ak ma xam ne moom ñoom la àndal waaye nit warut a am ful la ma fayda toog naan diw lii laa ko xamal lii laa ko xamal ci loo xam ne tegaloo ko fenn loolu ñun yaay duñ ko nangu ñun ay yaay lañ dañoo mhm. loolu ku kuré kuy yaay rek kër sa xol jeex na mais képp yaay yaay yaay yaay mel ni xam Wally Seck moo fi am ay yaay fu mu ñaata di nañ fi génn di leen di leen tuuma ku baax bari ndey ku baax bari baay boo nee kenn juru la dëgg neexul xale bu baax la boo xam ne mi ngi ci réew mi di toj réew mi di teral nit ñi di sargal nit ñi am ñëpp am ci ñëpp co euh, euh, respecté mhm. jox ñëpp cëx looloo tax mayu ma dara wowuma ko sama kër soxla ma mu ñëw sama kër musumaa gisee ak moom waaye dama ne mhm. nit ku baax day bëgg lu baax mhm. du ma nangu damaa jur ay doom xale bu ndaw taxaw ci biir ci ci ay peuple waxee ni mu waxee defee li mu defee ma waxee ni ma waxee defe ni ma defee lu koy dindi gisuma ko man soxna Awa Fall tiituma dara ragaluma dara yàlla rek laa ragal. ba nga waxee moo tax it Sénégal yëpp teg na seen bët. maak sëñ Touba. deux jours après mu daal di dem fee su nangu siin di ko bàyyi mu génn nag. doy na yan déggoo ma de déggoo ma de fii daal ku fi génn xotti war ma doomi aadama yi. doomu aadama yi daal ci sa kaw yépp laa wax. nangootuñ ko ñun yaay ñoo fi dindi loolu. parce que nag Sénégal li fi xewut xewul ci benn réew. Sénégal la nga bëgg a yàqu. pourquoi ku bëgg a wax nit lu bon njéen wax ko dem nañ bay góor jigéen ñi léegi sax dañuy dugg di wax mais pour quoi loo xam ne daagoo ko woon dégg trop c'est trop man soxna Awa Fall maa ko wax fu ne nii damaa taxawal sama bopp nag dootuñu ko nangooti. si aar Sénégal. si rek la ñu nekk réew mi la ñu juddoo fii la ñu màggee du ñu nangu benn nit di xoppi suñu war may réew. parce que ñun Sénégal dañoo xam ci pays de la teranga dañoo xam ci lu baax xool xam nañu ci diine. si foofu lañ jëm. si diineeg si aar Sénégal ak yëpp gisoon nañ ko daaw mars bi moom heure bi fekk na Sénégal moo ngi tàng ren ji presque am na un bi ma koy wax newoon naa leen gën a naa ki si la ne leen man soxna Awa Fall maa ne ku teg Sonko ñu ne waa man a deret dina tuuru ay xale yu bari dinañ dee barke Sëriñ Bamba mais mais mais dafa naan mais yow da ngaa garaaw man nga xam ne fu ma jëm damaa xam fi nga xam fi nga jëm ba ma ba ñu ne Sonko danañ ko tëj mhm. maa njëkk a génn ne leen Sonko ku ko tëj déw ma tàkk te gisuma tëjam te kenn du ko tëj. maa wax loolu te bés bu ñu laalee sonko wala ñu jëm dara ci sonko réew mi dina tàkk man soxna Awa Fall maa ko waxoon. dara dina bari li ma gis la xool ko gis ko génnewoon naa ci waxoon naa ne ñëpp génne sarax te boobu temps génn naa woo gars ñu ñëw man ne nag ku ci jigéen a génne sarax ku ci góor na génne sarax ku ci oyof bopp yaay am problème. waxoon naa ko maanaam da nga ko seet gis ko wala da tëdd su guddi maanaam affaire yi ñëw ma woon dara xaw ma dara doo ma woo fii dëgg neexul waaw waaw say sa riir moo tax kay dama ne su ma mënul woon dara xaw ma dara doo ma woo fii kii ku xamul dara amunoo dara doo fi toog dëgg neexul lu ma gis la te du ma gis lu ne dama ciy dut sama baaraam man soxna Awa Fall mm-hmm. ci jàmm laay dox ci yoonu saatal mustaqim bu ma koy tooñ mais histoire bi tamit dafa mel ni moo ngi yeewaat par naa gis nañ Adji Sarr génn dem si journal journal yoo xam ne ñoo ngi ñoo ngi extérieur Sonko tamit génn na. Adji Sarr moom li koy xaar dem mi ngi ñëw léegi Adji Sarr. Mm-hmm. xale la boo xam ne xale bu doy waar la. ah li ko xaaroon gisu ko. riir mu ma amoon doyu ko. moom nga génn ci réew mi mënoo génn. nga gëtoo ci réew mi bu ma profité danga ma naan tekk déglu ma. nga juddoo ci réew mi. mais dama laaj. ndax di ma laaj mais ba ma joxee question danga naan tekk déglu ma ba ma pare. mais mais nga juddoo ci réew mi. maa ngi ñëw nga juddoo ci réew mi màgg ci réew mi te ñeme dem ba ñeme too génn ci réew mi eh léeg daal loolu foor na dangaa dangaa teg sa bopp te kenn tëju la. emprisonnement mënut a weesu loolu teg nga sa bopp te kenn tëju la kon dama waxoon am na. mais mère Aïssa jigéen la. soxnaawoo Fall muy jolli. son awa faal jigéen na jolli nga war a jàppale sa sa sa jigéen bu dee jigéen te taxawul taxawaay jigéen man de keroog rus naa doonu jigéen ci kaw na mu def ndax xale bu jigéen bu tuuti mën a génn taal réew ba ay nit dee ca boobu boobu boobu boobu jigéen man naw law ko mais yaa ngi accusé de déedéet dama ne moo wax wax ja ba mu waxee wax gi la dëkk bi tàkk te bu dëkk bi ba dëkk bi tàkkee xale yi dee nañ ca ñi ca gaañu gaañu ñu am ñu am ñoo xam ne jëlee nañ ci ay handicap te doon ay xale yu mat yàlla bindi leen tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmin tey amuñu loxo. mais ku lox tooñ ñu ko. kan lañu ñu tooñ. ay saar ku ma lox ñu ko. kenn tooñu ko dama ne. kenn tooñu ko ma ne. kenn tooñu ko. foo ko teg. fi ma ko teg fu wóor laa ko teg.

Sonko lu mu def moom lañ diñ bi ma ne ki toog naan dañ ma violé tey. waaw violé waat ma violé waat ma violé waat ma kon da koo neex. violé kay benn yoon lay doon ñu xam ne ah waaw waaw yaa ma violé violé waat nga ma violé waat nga ma ña ba ñaata yoon ah yooyu eh, looy bamti bamtuwaat kon dalaa saf dalaa neex dëgg neexul eh jigéen la ñu ñun xam nañ nu fa demee. moo ngi noonu jàll ci leneen sunu maman soxna Awa Fall nee naa leen gis ne tey jii moom lañ dalee sunu biir plateau mu doon loo xam ne wax naa leen te émission bi dina neex dina tàng maa la wax ni maa la wax mu toll nii léegi bi mu jógee si problème yooyu lay ñëwaat si yow say mbir mhm. yaa ñëw takk euh, def say béjjén say parfum say seetu ñaar dërëm fukki dërëm xawma lan lii la ni muslaay ca làmmin dëmm yi jinn yi dañuy musla ci ñoom mais dëmm amul dama amul. waaw fekk jàpp ñu la doom. man dañ maa mën a jàpp. <laughs> la ilaha ay bu la jàppee nga jommi barki yonent bi. macha allah ñun seetkat yi dañoo wut suñu musluwaay. lii musluwaay la ndax soo amulee musluwaay teg koo ba ne gàjj. ñu ci biir dëkk bi rek ay dëmm kese lañu. waa mais. dama ne. <laughs> ñi ci biir dëkk bi ay dëmm kese fi fees. dëmm yi kese fi fees. boo gisee dëmm nga xamee. ñun dëmm ba ñu xamee. waaye man dama ba ñëw sama kër di nga wàññeeku waat barke saat Xaadimu Rasuul billaahi dama ba dugg sama kër di nga génnaat ndax ñun ay seetkat lañu dëmm danañu seet si jina danañu seet si nit ku bolit bëgg def def ñu def ñu la bon danañu seet si waaye boo ñëwee di nga dellu de. des fois ay dëmm ñëw seet si la. barke yërënt bi dëmm ñëw na ba sama wet. toog jaag raaj. waaye yaakaar naa ne ba mu fa jógee te feebar la mujj. tuba ko ba mu bëgg a dee. laa def waaw noo xamee ni kii kii ma ses nii day dëmm la. moom xam na ko ñun xamante nañu ay ay borom bagage lañu. soo ñëwee rek dañ ko yëg ñu sama doom. posé ma benn question ba gën a am solo. léegi nañ ba léegi nañ nañ foofu kii bi si kii bi nañuy dese lii na na la ñëwee si yow daf na ko donn. lii doon la ak may suñu borom. dama ne. Mm. ku ku kuy kenn ku nekk na nga gëm sa bopp te bañ a xarab ku ci ne. lii may suñu borom la yàlla ma ko may barki sëñ Muhammad jéggaani ma ko na ma koy waxee ni demoon naa ci benn maire seetkat bu mag boobu xale laa mu di ma xoolal na ma soxna wa mën a naam mu ne ma danga dem ba bës ci jamono loo wax ci ci ci péta du dañ muy maire soqati rusuma koo wax ndax du invité nañ ma di TV ma def émission boobu muy guddi gi man ak mbay mbay mu Kouthia ñoo def émission boobu di TV ma wax ko fa su sama njëkk woo téléphone benn clientam bu fort ca moom ca États-Unis woo ma téléphone ne ma wax téeméeri dëgg la te bi may dem ci moom xaw ma dara. boobu lu ndaw laa. Mhm. mu di ma xoolal ba yàgg na ma soxna awa mën a naam mu ne soo bëggee dégg-dëgg di nga dem ba sama petaaw yi nga yor mu ne ma petaaw yi ma yor di nga dem ba loo ci wax nit du dañ te tey maa ngi koy dund. kon ku ne seet amul boobu day fekk ak dañoo wax seet kat. taay moom waxuma la xew de ndax xew da ngay xew ba mais yaa téye moom la wax. damay téye réew mi sama loxo laa koy sama bopp damaa gëm sama bopp mhm. du def nit lu bon du wax nit lu bon de gooma de waaye ku ma tooñ ma duma la. te yaa ngi duma waaye mu bañ a duma ku ma tooñ ma duma la. ñooy duma. <laughs> ñi may tooñ. ah mais maintenant temps yi dafa am ñu bëri ñoo xam ne senegal léegi dafa bëri ay seetkat. Mhm. te am na ay mair yu garaaw. yu garaaw ñoo xam ne nag ñoom ñooy bëgg di dem bëgguñu kenn ku dem ay naafiq. ñoo xam ne. dañuy bëgg di la soos waaye man ku ma ñam di nga xam ne lépp ñam ñam nga ñam laal nga laalaake. kooka la ñam xam nañ seen bopp. dama ne xam nañ seen bopp doom xoolal munoo ma sës bi damaa yàgg ci lii may intellectuel nag. Ah, dama ne may intellectuel doon liggéey ci rajo. te nee la maa jor Diouf. man ku ne xool naa la ku ne lijjanti naa la man Fall. mais foofu yëpp dinañ fa ñëw di seetal gars yi bu mu neex. mais dëkkal mais nag munoo maa napp de man sa nii moo tax nga. naa daa mel ne dafa mel ne napp bi jàpp na la de. man mënuma napp <laughs> mais réew ba nga commencé ma yaakaar man ku am fit laay waxanteel franchement boo ñëwee taxaw na am ñoo xam ne dañuy kii mais kii dafa ma dafa ma doon napp wala lu ma wax fii sànq tooñ baaxul man bëgguma koy tooñ. kon waruma tooñ. non mais lu nga def eh man waruma tooñ. Salba la. ndax li may bañ. Salba Ndom seq ma moom leen. ah sequñu leen bul tooñ jàmbur bu ko dugal ci émission bi est-ce que dama ne bul fi dugal turu kenn ndax man Fall damaa toog ne la man Fall Ameth ak Abdallah laa du ma tooñ bugguma kuy tooñ léegi laa ko wax kon nag du ma tooñ non wax ma da ngay tooñ de dama ne la mhm. dafa am sa yeneen yoo xam ne mhm. ñoo ngi fii Sénégal mhm. mu toon yow nga téewee réew mi noonu lañ téewee réew mi ah waaw xeebalu ma leen ko de waaye ma ne sama mu ko kenn xeebal xeebalu sa bos ah kay ah, man xam naa li may wax dafa am ñu lay man <laughs> waa léegi mais loolu laa bëgg man problème boobu laa bëgg régler dafa am ñoo xam ne da lay xeebal yow. li nga yow yow boobu problème tuuti nga pour régler ko. nga pour régler boobu déggoo ma xanaa. ah mais demal ci beneen question. non mais du ma question moom il faut ñu des si kanam. barki Sëriñ Bamba dootuma ci waxaat li wax wax naa ko ba pare. ah xam naa ragal foofu kon. man amul lu may tiit barki Xaadimu Rasuul amul man taalibe Sëñ Tuubaa laa amul lu ah, may tiit. waaw ah, maa la ko wax man sëñ Fallou moo moo moo moo moo seexal sama maam. ñu ne dese waaye yéen bi di sama maam. amoon na may tiit yàlla rek laa ragal. kii yaa ngi lay woo loolu mooy sant yàlla sant yàlla dañ koy sant suñu borom. <laughs> mais fu mu toll nii si fu ñu toll nii à l'instant la ngay gën a yëngu maanaam si ban si nit ñi bu ñu nee ban problème la lay gën a laaj. waaw dinaa seet ci diggante góor ak jigéen sëy yi dafa yàqu instant bi mais sëy yi est-ce que du si ñoom. déedéet des fois nit yi dañuy yàq ci biir sëy yi man xam naa li may wax bu baax. des fois day am ñuy dugg ci sëyu jàmbur di yàq sëyu jàmbur yi bëgg ñu tàqali ko xale yi bëgg a sëy te amaguñu borom kër des fois ay rab dañ leen di sonal man soxna Fall dama leen di jàppale ci loolu am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci góor ñi day am ñoo am joge impuissance seen doole baratul ci wàllu jigéen yooyu de naa dañ ci liggéey bu baax. te dañ ci te dañ ci dama ciy yëngu ak ñoom macha allah yooyu yu bari daal maa ngi ciy yëngu macha allah maa sant yàlla bu baax a baax. cat moo gën a garaaw loo gis ci kër àddina waaye dama koy may tey gaa yi. cat ku cat sonal. utal ndox doomu taal puso bureau ba xonq fay ci ñetti xar nga sangu que sëñ Bamba sa cat bu nekkoon sa yaram de dina waaj loolu maa ko may gars yi lan lan mooy différence entre cat ak seytaane seytaane bu duggee cat bu duggee seytaane day daal di dugg attention hmm. seytaane du dugg bu fekk amul amul dara lu fa nekk bu cat duggee rek seytaane day daal di dugg hmm. te bu duggee mën daal mën a la dara waaye nag dama ne comme ni may waxee saa su ne na xale yi sangu defar seen yaram tey seetlu seen i mbir di génne seen sarax ndax sarax lu gën lu baax la ci doomi aadama lu baax la ci gén doomi aadama ndax sarax dina fànq dee sarax dina tax a bi defal sarax bi ñu yéene nga dem génne ko daal gis sa bopp mhm. des sa affaire taxaw fekk ñetti guro yu xonq nga war a sangoo ak ñetti guro yu wax moom nga war a xooj ba set boo xëyee sangoo ko ngay beeku loolu day am te ñetti guro xam nga seerul seerut mhm. ñetti guro rek moo lay kon kon liy téye kon lu ndaw la mhm. boo seetlu nag xooloo sa bopp doo ko xam des fois dara mu dëgër këj sama sama kawar bi de dafa bëggoon takk jabar mais ba léegi mënu mënu takk léegi loolu des fois da rab la ah des fois da koy def bu ñëwee si yow xam nga yéen xam nga yéen xale yi da ngeen mën a dox guddi da ngeen tàmm dox guddi wala ngeen toog guddi ba yenn heure yi ci ci mbedd te ku ne yàlla dafa def bëccëg def guddi guddi dafa am ñu ko moom mm-hmm. yàlla dafa bind te yemalu dafa bind ay jinne mm-hmm. bind ay doomi aadama def ay malaaka mm-hmm. tubaarkàlla macha allah kon ñëpp bokk ñu yem ku ci nekk am nga heure boo war a jóg mais yéen xale yu góor ne ngeen bëgg a dox guddi di guddi na dafa am boxam di nga dox ba dajeg loo xam ne tubaarkàlla da lay jommal nga dox ba loo xam ne da lay doo ko gis waaw la lii rek gis te doo ko gis da nga koy moytu waaw lii nag jar na nag nga takku say takku wala nga sangutu mhm. wut ay ñaan ki sa wàllu yaram boo xëy di génne sarax yàlla jëla musal te nag tollu nag tegu nag yoonu xàq bi xàq bi mhm. attention ñu war a julli nañuy julli nañuy julli di ñaan ndax yàlla moo fi ne mhm. tey am na suba day am de day leen julli tegu ci yoonu sartam sa xim c'est très important ku julli yàlla dina la aar te ku yàlla aaral boppam nga am nga am kaaraange na mu doon loo xam ne lu am solo la. lu am solo la surtout ci xale yi parce que jinne dañ gaaw dugg nit. waaye euh, baatu laa ilaaha illallaah baatu allahu akbar benn jinne rabu ñemewu ko. Mhm. benn jinne ñemewu ko du ñu dugg xale yi. mais def seen jiwmat out mhm. jël ba bi bàyyi noonu mais jinne da lay dugg. ñoom faatu. waaw da lay dugg te léegi xale yu góor yi dañuy def càng ci euh, check down. check down check down boo ko defee jinne ju la a dugg dugg la. wallaay da leen da leen muur seen yaram yi. Mhm. yaram awra la. li moo waral ñu koy tuddee l'intellectuel des voyantes. effectivement maa la wax lii. loolu moo tax. boo gisee say verre nga xam ne yow vrai intellectuel nga yaay booy. Mhm. Mhm. Euh, ci biir réew ak fi réew <laughs> toll. moom yaa ko téye moom loolu moom dafa dafa dafa mhm. bu ñëwee am rab si ñaata jour nga ko mën a faj. ca rab ba. parce que rab yi dafa am dañoo am jëf dañoo gën a gën a amante doole. dañoo gën a amante doole. waaw les fois nga ñëw gis koo xam ne rabam day métti lool dis lool kooku di nga dem ak moom une semaine. wala deux semaines wala quinze jours ki nga xam ne rab bi da koy doo a dugg rek noonu. Mhm. kooku moom mën nañ dem moom i semaine baax na semaine. semaine waaw ñu jox ko li ñu koy jox mu sangu naan macha allah defal ko li ñu koy doon defal jëlal ko daal di koy wàcceel ndax wàccee moom yi fi secret la. Mhm. dañuy wàccee ñun. Mhm. waaw dañ ko jël ci ginaar ginaar bu xonq ginaar bu weex wala ginaar ko ñuul. sans dépenser rawaan lu muy laaj bu ko defee bu fekkee ne ki wa ñu lay wàccee wut dugub. tëral la jëf sëru rabal teg la loolu secret la du ma lu may wax ci télé. waaw sa garaaw a <laughs> ba noonu. Ah. bi nga fi indi ay rab. déggoo ma de. man daal beneen mu tudd sax ak beneen bi am na beneen bu way gën gàttali. kus kus kondoran kus kondoran <laughs> mais kus kondoran yi ngay téye sa loxo bi di dem moom fu la neex moom di jaabante ko dëkk bi ba wóor na. <laughs> <laughs> sama doom euh, bàyyil noonu bàyyil noonu. non non mais ah ah, ah ah bàyyil noonu bàyyil noonu. Ah, yooyu bul dugg ci yooyu yooyu bàyyi yooyu. non kus bi. yooyu du ma ci wax. xam tax dafa am ay maire yu nekk fii di bànn man xam naa mm-hmm. man man man yow laa gëm. maire yooyu gis ñu ànd ak kus ko ndong gis ñu ànd ak ay dîner. Mm-hmm. mosuma gis te maire fu mu toll nii moom yaa téye mi kus ko ndong laa bëgg nga génnee ko. Sénégal léegi fooy dox doxal ak moom. Mm-hmm. ko defee ñu nekk fi di sous-estimé ñeneen yi. bàyyil noonu sama doom àddina sutura la mais ah, àddina sutura la bàyyil noonu nañ demal ci beneen domaine. waaye kus kon dorong yi. demal ci beneen domaine demal ah, ci beneen domaine mu ngi wax kus kon dorong yi. yàlla xam na ne doo su ma ci waxaat. billaahi demal ci beneen domaine. kon nag amul kus kon dorong yi xanaa kon. demal ci beneen domaine sama doom. ah xam mais soo soxna Awa la sama sunu yaay ji. kus kontaan nga xam naa day bañ yeneen maire bi ko gisee tiit <laughs> sama beneen sama beneen yaay bu ma tudd seen tur waaye xam ngeen yéen laa waxal <laughs> billaay ma bañ a tiit. kus dégg man daal ci xàq bi xàq laay yëngu xam nga wax naa la ko léegi. Mhm. xàq bil xàq yoonu dëgg yi. kon àndaloo ay kus kontaan. xàq bil xàq ci laa taxaw ku ànd ak yàlla am nga lépp bak seen daal salatu ala nabi mhm. xàq bil xaq yàlla laa àndal. bu ñu jógee foofu. ci julli nag ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man ñooñu laa gëm ku ku ku tegu ci yoonu xàq bil xàq mm-hmm. yaa ngi ci yoonu jub bi te ku ne ci yoonu jub bi yaa yaa yaa faw nga am dara wallaay waaw rabbi sama waati wala addi borom jaami kon kooku ko dafa am ay ay ay ay ay bombe automatique yow nag xam naa lu la gars yi ragalee su kus kontoran yi rab yeeg jënd yi moo tax <laughs> daal yaa ko wax mu daal soxna Awa Fall duguma ci loolu <laughs> wallaay ndeysaan waaw waaye kii dañu ñëw si beneen kii sànq nga ko sànq mm-hmm. nga ni da nga jaar fu bari jaar naa fu bari liggéey na ak Ndella Madior Diouf. fa lay pose tey fa ma loolu la fa génnee. sama sama sama bopp. ndax dama faa gis sama bopp. ma génn ma bañ wax rek ñu naan publicité la. samedi ak jàmm incha allahu rabbi maa ak moom ñooy bokk palaato voilà Ndella Madior Diouf. Ah. bu ngeen bëggee ma wax rajo bi de. maire maire kooku daa garaaw de yow seen suñu yaay jooju. kooku damaa nekk nag moom ci biir këram. te liggéeyee nag moom. yéen xamante ngeen di toog ak moom. naa toog ak moom toute une journée di waxtaan. kon kooku maîtriser naa ko xam naa mooy kan. mais nag boo nekkoon këram. génnoon toog waxtaan nga toog si ak génn tax génn fa ko. waaw loolu samay samay bopp la. loolu samay mbiri bopp la. Ah. yoonu benn xale newu ca. kon mais suñ ñu suñ du question ay xale ay mag ak ndaw naa mais da dem ba yëg sa bopp nga man fu mu toll nii ay naa. sa bopp dafa gën a neex moom xam na ma man laata ma ñëw ci moom maa ngi si di toj wax naa ko ko. mais sa bopp xawoon nañ la. bañ a xam. <laughs> demal nga vérifier Sénégal vingt deux cent vingt et un bu ma taxawaat. non fii wasaar wasaar moom instant mooy. déggoo ma de. ak Dakar mi de waaw moo tax nag boo demee gis fa li ma doon yi dañ maa xam dafa ma fay ñëw. Hmm. macha allah di sant yàlla bu baax ma ci loolu. léegi tax nga génne ko ba léegi waxoo ko de. non loolu si fii du jàmm ak salaam liggéey sa bopp daa gën a neex. parce que Ndeye Madior suñu yaay jooju ñu bëri jaar nañ hmm. mais ñu fa jaar ñëpp tamit ay ay ay ndaanaan lañ. waax nan nga fa nekk lool. ah ba ma fay nekk ci samay temps fekk naa fa yaay fal bu ñuul. daba booy ndax daba booy. bokk nañu plateau bokk nañu plateau des STV. mais ah mais jour boobu tàng na na de. waaw léegi noonu man la soxna ma bari ba bari wax. Mhm. taxate mën a wax. Ah, wala bari wax taxate mën a jëf. xëy bu ma ko de ndax sama nawle la. Mhm. sama nawle la la muy mën mën na ko. Mhm. waaye man yàlla am na lu ma may. kon sant yàlla di ñaan ku mën. man bëreew ma. c'est non mère mais du question na bëre man mère ma wax la dara. bëreew ma ma wax la dara. doom wuy ma daba booy sama nawle la daba booy sama euh, collègue la woon de service ca Ndéla Madior yàgguñu fa sax ma ak moom peut-être mhm. un mois la fa def moom après mu génn dem. ma wax la dara neex na man ñu may liggéeyee fii samay collègue de service sama bopp. mais ma noonu sama doom. mais mën maa mën bu yàggee nga yegg suuf. kii mën mooy kan rabbi sama waati wal ardi borom jaami déggoo ma ne kon jeex na kon nag man dama déggoo ma ne la man ci xàq bi xàq laay yëngu man borom man man borom borom borom mbaan mi rek laa gëm waaye man xam naa sama bopp gëm naa sama bopp waaye du ma ne maa fi mën de déedéet ñu koy wax da ngaa gàtt xel non parce que métier bi ngay nekk laa la déggoo li ma la wax ku naan maa fi mën maa fi mën da ngaa xel xam nga kan moo ma mën a seede mu ñi nga xam ne ñoom laay jàkkaar lool ñoom ñoo xam ndax mën naa wala mënuma ñooñu ma mën a seede ah, waaye ku ku bëgg a toog faral sa bopp da ngay dem doon naana dégg naa Mor na la de ah, waaw waaw maa ngi sant yàlla bu baax ndax yàlla bu la mayee nga naan yàlla mayu ma <laughs> ah, yàlla daal di rocc waat li mu la joxoon alhamdulilah maa ngi sant robbi sama waati waa États-Unis la toppee ba jàmm waa États-Unis daal maa leen téye ñoom ñoom maa leen téye nii te nee naa la léegi lekkatu kese naxul béy jamono bi ñu toll fi ak fi réew mi kenn mënut a nax kenn Modou Modou yi dem xanaa ah, yaa leen yóbbu parce que dafa mel ni tamit loolu da si aay këyit gi. Ah, këyit gi de moom ku ma ci mos a defal yàlla defal ci jàmm sant yàlla nag képp ku ma ci mos a waxal sant nga yàlla. Mhm. macha allah. ki yaay yi wat may leen ñu rek tey jii moom suñu yaay awa ñoo ko moom may leen ñu rek naa da ngeen soxla waaye tamit ah, da ngeen ñu kii waaye tey boo doon may di seetal fii loo ñuy loo ñuy defaral tey. damaa seet ba pare. da ngaa seet ni ba pare seet naa ba pare ba atamay ñëw. eh te dinaa la xamal la na tey suñu émission bi day toj te àdduna wërngal képp lay yéen. barke salaatu ala nabi yéen ñëpp ngeen fi génnee ni ngeen def soow ngeen génne ko sarax wala sa suukar bekk donte juróom-ñaari bekk bariwul. non bariwul ñetti guro yu xonq ñetti guro yu weex ci kaw li ngeen di am xen ñaan ngeen génne ko sarax ndax man laata may ñëw damaa door li may door. loo gis barke Sëriñ ma jàmm laa fi gis seen fii ngeen ebbi nii. Mhm. jàmm ak jëm ci kaw incha allahu rabbi. man de moom instant yii meilleur présentateur du monde laa bëgg. da ko doon de bu fekkee gëm sa bopp. loolu kay jaratul wax. sa bopp kay jaratul wax fii la boojoo. kon neex na. ah dañuy dem si benn dernière question. booy tey suñu même lu ñu am dañ koy jox mu wax lu ko neex bàyyi ba dernière question Sénégal xam nga ne fu mu toll nii moom mu ngi préparé lii di coupe du monde. ñu nekk Égypte. xam nga man dama ñëwoon toog ci seen site na leen Sénégal incha allah coupe bi fii lay ñëw. waaw moo tax ma delluwaat si yow laajaat la question bu ngeen demee bu ngeen delluwaatee xool li li nga xam ne def naa ko. wax naa ko. ma leen Sénégal ñu ne naa ma leen ko bi fii la jëm ci kàttanu suñu borom te gis nga ba ma koy wax boobu ñu ngi am ay ñu ngi am suñu suñu suñu yi presque neexul woon gars yi di critiquer ci critique ba fa génn wax ne leen ko bi fii la jëm si keroog bi ngi def suñu final mm-hmm. damaa toog sama salle di seetaan gaa yi di ma woo mm-hmm. gars yi dem ba xaddi gars yi yëpp découragé mm-hmm. di ma woo soo naa woon nu muy demee ma ne ko son ngeen seen jokkin mbaa mbaa s ngeen seen jiin. naa ñu ne ma waaw ma ne ko kon préparé leen la lakkaayoo leen seen seen drapo Sénégal tey dañu am ndam na dañu jubilé. parce que salaatu ala nabi. billaahi man sax na ma fàl lii laa wax. billaahi mooy awaat bi gën a fort ci waat. Mm-hmm. gars yi di ma woo man ci sama wàllu jokkin laa sol keroog. Mm-hmm. ma ne leen billaahi ñu ne waa ma ne leen billaahi da ngeen di jubilé tey. te boobu tiiroo bit lañu fe lañu lañu lañu tombé. gaa yëpp tiit moo waaye macha allah. Mm-hmm. macha allah sant yàlla. waaw mais tamit question bi. keroog da mel keroog mel ne man maa doon joué ndax sama kër daa fees del gaa yëpp ñëw di sargal. Mhm. kon sant yàlla am na yoo xam bu loxo yàlla may da sant yàlla. sant yàlla mais question bi ma la posé nii posé naa ak ma xool ñeenti sëñ xaw ma ba léegi kenn tontu ma si. muy si lan. Sénégal match aller bi football contre Égypte fële si Égypte ak retour bi football fii Sénégal. dañ koy daan dañ ko daanee woon ko wax man soxna Fall. xanaa goma sa bopp. ñaata la. bu mën a goma wax lan la ñaata la mais dañ koy daan nañ ko daanee woon. match aller retour de maa la wax lii dañ koy duma. xale fi ñu toll nii. Mhm. ak ni gars yi nekkee benn nii ci Sénégal. barki Serigne Bamba fu ñu dem équipe bu ñu dem dañ koy duma mu toog. xaw ma nag dañu yëba ji ci coupe du monde coupe du monde bi. mais bii nii dama ne bii moom dañuy qualifié dañuy dem kenn duñu téye. loolu moom leer na barki Serigne Bamba. Macky Sall. dina def troisième mandat wala du ko def. du ko def man soxna Fall maa ko wax te yàgg naa ko wax. gis nga du dem. mais sa réponse bi gaaw maa ko wax doo xalaataat tuuti gëm gëm li ma wax dama ko gëm te yàgg naa ko wax dem leen fi ma daan waxee. kuy nekk président vint 2024. duñ fi ñëwaatee dinaa ko wax. ah boo ñu mënee wax moom président. déedéet du defaat du defaat troisième mandat man maa ko wax ci kàttanu suñ borom. mais mais man man man sama bopp man su ma laajoon Macky Sall na dem troisième mandat du ko def politiquement dama naan ko def. déggoo li ma la wax. du dem troisième mandat. ku cay doon nag ak kan lay doon. Mhm. ba bu fi ñëwaatee. nga wax ko. ba mu leer mu ne ma muy ragal yow. yàlla na ragal taay moom nee nañu ci kàttanu suñu borom. yow dama sama wax yëpp dama ca mës a dama ca mës a génn sarta mu saxin samay wax sànq ba léegi dama ca génne yàlla ak yonent bi yow dégg ma la xàq bi xàq fa laay yëngu. nee naa la man Fall Ameth ak Abdallah la. Karim Wade du nekk président Sénégal. ba ma ñëwaat. ci laa koy waxee xoolaguma ko ba ma ñëwaat. te moo ko mënoo ko xoolal ni affaire yi. déedéet wax naa li ma wax ba pare pare naa ci. léegi kon pourquoi pourquoi nga gën a woon lii nii pour la woon. waaw wane ma sama bopp ñu xam ne je suis une voyante teg sama junjum ndax lii laa gëm mi ngi nii waajaa ngi. waaw samay rawaan ànd ak man. ni ni kan kan moo ñëw ba koy génnee. kan kan moo ñëw. macha allah du ma ko wax loolu secret la. Ah, du lu ñuy foyee déedéet ku xam fa nga jëm doo yegg. Hmm. léegi doon seetal tuuti ñu xool. tey duma seet nee naa la ah. damaa seet balaa maa ñëw. waaw ah, mais mën nga seet seet. barke Xaadim Rasul damaa seet balaa maa ñëw. du ma seet tey tey xam nga lu may indi tey. Hmm. waxtaan seeg yéen ci actualité bi wax leen may kan man soxna Awa Fall en tout cas daal ku ma soxla xam nañ fu mu toll yaay kan. ku ma soxla nañ ko doon defee rek ci baar écran bi numéro baa ngoog ngeen woo soxna Awa Fall maa ngi fii Maristes laa dëkk Maristes 1 ci côté Aly Ngouille bi man foofu laa dëkkee macha allah ku ma soxla maa nga fa macha allah. kon neex na kon neex na jërëjëf. ñoo ngi lay jaajëfee. jaajëf sama doom. Mhm. di leen jaajëfal question yi nga ma yi nga macha allah na solo. Mhm. ay mën nga li ngay def macha allah te ko. waaye man soxna Awa Fall ku ku jàkkaarloog man di nga patine. xanaa na kon di leen sant di gërëm di leen sant di leen gërëm. ah nee na nag kontaan naa sama teewaay fii ci seen site bi yàlla na ci yàlla def jàmm macha allah. <laughs> merci beaucoup daw ginnaaw ministère bi du arrière fu mu teg tànk bi ak sunu yaay kii nu mu sax euh, maire bi taal bi sëñ Saliou bi. soo paree wax ma. mais xamoo pare naa ci boo paree wax ma soxna Aida soxna Aida bu sëñ Saliou xamoo ko. xaw ma ko. <laughs> non mais man ñaax yaa merci beaucoup jërëjëf parce ki yàlla faanaal bis ngi tey man mais yaa ma leen gënal kenn du yow bokk na di Wassare TV gis ngeen tey jii. L'intellectuel des voyantes lañ indi leen tey di merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en attendant je vous conseille de manger beaucoup de bananes